ay alhamdulilahi si waxaaba li alal kibari ismail ay saa inna rabbi la samiu duwaay loolu sëriñ bi tënk loolu alquran la yow yàlla day rabbana yow sunu borom innaka yow day tax la mu xam nga maa nu fii la ñuy nëbb wa maa nu li loolu nay feeñal sëriñ bi ne ba làmp yëpp feye ba ñu suñu mbubb yi waxuma la ñuy def waaye li ñuy déyante sax xam naa ko bu bind ko bu yàgg kon man kenn mënu ma la wa maa yàqu yéen nëbbuwul ci yàlla ñu sëyin dara fil ardi wala fi ci asanaa wala suuf nëbbuwul ci yàlla alhamdulilah nee na mu sant si ci bay may wax àll si boobu yaxay waxaaba lii may na ma alal ci bëri ci mag ismaila ak isaa inna rabbi saa borom daal la samiu duwaay ku dégg ñaan la xese bi nekk foofu moo waral kërëb ki waaye lu gudd la jot ni bi ñëpp xam nañu ko mbaa ñi ëpp xam nañu ko ko ñi ëpp xam nañu ñi ëpp nag la suñu tubaab yi mooy waxin ma sëñ Malick Ndiaye suñ tubaab da ko daal yéenaloo bu yéenoo mu ne ko Malick ndax lu nit def mu ne ko ñëpp mu ne ko Malick noonu ko waxee ñu de ñëpp du dikk ñi ëpp ñu dikk na waaw mu ne ko ñi ëpp dikk na mu ne ko aw kay ñëpp du dikk ñi ëpp moo dikk hmm. maanaam aaya boo ko dee alhamdulilah li di ko ko ñaarale suñu tuwaa ne du dina mal prière bu mag di ko ñaan ko alhamdulilah illadi wahaba li alal kibari ismaila wa isaaka inna rabbi la samiu duayi loolu la ñu yéema ko fu gone bu ko defee du dee ci ndaw rabbi ten li muqima salaat suñu ko mënee loolu Ibrahima ko ñaan nag ma def ñu taxawal julli juróom def ko ci samay sët defe naa loolu gis na ko Tuubaa nodd ga ak rajo ba fa nekk ak baat ba mu am la mu fa mu fa mu jot defe naa amul feneen hmm? rajo képp lu ci àdduna ñi ko liggéey ñëpp lañ ci jaayul benn ba Màkka lañ ko jaay ba ca des Medina fi ci des Touba suñ Touba noonu la ci ñetti wes ba muy nag Touba yoo muy dox rek di dox rek bu doxee dem si bayaag mu dox si mu ne tuur dara bopp rek ya rabbi wa ma yasuruhu min malakin sawfa salaam mais baytul mahmour nga xam ne juróom-ñaar junni malaaka ñoo ci dugg bis bu rek génn yàlla tagg ko borom mais moom Touba ñoo jaroo soro yi ñoo wala mel naa xam ne Serigne Touba dama ko woy mënuma koo woy ndax Serigne Touba dafa defalul kenn fii lu jaar bu woy ñu ko lu tax mu ne Serigne Touba defalul kenn dara ñu ne ko nga wax lay def mu mu am lépp da koo denc di ko liggéey àllaa ñu xëy borom góor ñi waaye nag bi maa Touba mu samp li ci def ci ay leer ak i secret soo leer yi jóge dem ci Baytul Mahmoud ak leer yi jóge Baytul Mahmoud dem ci ci kaaba mu jumaay sëñ bi ne ñaari leer yooyu jaxante léegi ku dikk ci romb romb say bakkan moo faj seen aaju seen bi yëngoo waaw daa daa ko wax ne ci béykat yi léegi seen bi ci lay yëngu léegi dafa am benn dara yëngoogu na rabbana wa taqabal duwaay yi yàlla mu ngi sama ñaan yi rabbana fi lii wali waay day wali moom yi wali yow ma yàqumul xisaab yow ma yàqumul xisaab mu ne Ibrahima ay wax ba tey ni yàlla yàlla na nu jéggal jéggal suñu ñaari wajur jéggal jullit yëpp bis bu ñuy taxawal rek la yàlla yàllaaw yaa rabbi innaka xulta wa xawluka alxaq sëñ Tubaay wax ak yàlla nag ni ko yow yàlla yaa rabbi yow buur bi innaka yow yàlla yàllaaw yow yàlla yaa rabbi yow buur bi innaka yow xulta wax nga ni wa xawluka alxaq say wax te mooy dëgg yaa wax te sa wax dëgg la wa wax du ko wa wax du ko sittu ko te sa sa daalit dëgg la addu moo nii yaa ne ñaan leen na astajib ma wuyu lakkum ngeen leen waxulta aydan ba tey yaa waxati ni waskuro li sant leen ma wala taskuro ci bu leen ma wedd faa xana yëgal ni yeeg yow yàlla ndax kepp naa la kat ak ko ñaan naa la boo askuro ko sant naa la ba am nag jéggalu taal bi yëpp jox leen xéwal yëpp nañ fi tane bu leen kenn yàq te bis bu leen xëy ma isaaf laa loolu rek laa la wax léegi ñu nar kàpp yàlla waaye muy ñeenti sàmm nga xëy yi dundub sekk xam nga ni suñ bee a jàngam tubaab bi mu mën a naxee nga yor sa xaftaan bu yaa jéego dara ci tubaab liggéey ba yore milieu bi leen lebal ba ñu tegg li ñu fa ñëwee jaar kon dimbalu sëñ bi la sëriñ benn katabtu fil bahri sariyan xaalisan wa bihi xursu la si saaxalil awaaxa wa saaba ne ci géej gi laa bind bayti ne bayti ma sànni sànni ko ci géej gi moo wuli tubaab ba ñu nooy nepp ne ñu ràpp ndimbalu liggéey xaalis jiitu jox la yaar yi nga di ko jënd ci ñoom ne sa mbaam lañu rek ndax mbub mu ngay sol ñoo ko jënd ñoo ko liggéey xaalis bi nga ko jënd ñoo ko liggéey yenn yaar yëpp sax ñu koo fay ne mbaa ni mu li ñu day baax rek waaw ah? waaw ñu ne ah waaw sëñ Seex ay mbaam lañ de seet waay mbubb yu ñuy sol du tubaab yi ko liggéey xaalis bi ñu ko jënd du tubaab yi ko liggéey boole yaar yëpp suñu koo bañ sëñ Tuubaa neen laa yenta li yàlla daa attaaka annahum lanaa ahbudum se taw da gaddaana fil xalq ne murid yi wuñu naa leen tubaab yi mel ni mbaam sëf nekk gën a jekk ja nekk gën a jekk karawaat bu yëg ci murid yi rek ñu nax la jël sa xaalis duñ jàpp doo ci man dara jàng jàng jàng ba di bëri li mu wax ay di nga yor ci saako ji nax la doo ci mën dara. sëñ bi waaye nag yéen itam. <laughs> ah mu mel ne loolu mu daal dama wax léegi naa bu saa yéen dinaa waar yëngu naa ko ñu la xam ñoo ngi tare ba léegi de. Hmm? ba léegi murid yooyu def naa nëbb dootuñu ndax mbubb mu yaat la ñuy sol teg ci waxtu mu rek nga xam ne kenn murid la dafa amoon benn waay bu nekk jiwal ak jooy doon ndeysaan mu am gaal la gaalu mbaam mbaam mu am beneen sëñ bu bokk ci weneen yoon ma ñaan loo ko ca nag dara dara dara mbaam ma jàppatu yàlla dogal ma ñëw nag monsieur ma maa yor te ma tuur ngay taw sëy bi ànd sama benn xam bi bi ma seen mu ngi rek mi ngi yooyu nekk ci digg sëriñ bi daaw kene bi tee sa mbaam jàpp leen mais ci wax ma maa ko barke sëriñ Fall léegi jënd bi jox ma suuf ma jox ko mu digg moom daa daan def ci kiimaan goo xam ne ñu suur mbaam rek mu dem jàpp Euh, mu dem jàpp euh, affaire boobu gis yoo xam fonte gis yooyu ñu wax dem ba nga dem wàccaay juróom-ñaari mi ne wax naa leen ko mbir mi sotti na ko yàgg muy ñu yore mbir mi waaw te sëriñ boobu yaakaar na ba ko ñaan mu ne ay sawaay yi moom ba ma ñaanal de bind li loo wax ay tërëma lu nekk ma bind ko moom daa mel ni bind li ñoo kenn baax bu baax taw rek sëriñ tam waaye suñ tuwaa rek dina ne sëriñ bu rek ka fi nekk de waaw. sëñ bi nga de boo de boo dégg mën naa ñaar mag ñi boo amee ma am naa fi yëpp menn mag ñoom waaw menn mag rek mag ñi léegi la bàyyi waaye bu njëkk ba ñu wootee ne ndax menn mag doo nga amoon. ñaari mag yëpp moom booba léegi nag droit de l'homme bi fekk ba droit de la femme droit de la femme ak yu ne am léegi mu nekk cër sunu rek di baax waaye damaa mel noonu. waaw. Ah. te nee na kon nag sëriñ bi dugg ci xasida gi léegi sëriñ bi dugg na ci xasida gi mais alhamdulilahi karimi silminan ala tiqaali bi furudin wa sunna alhamdulilahi alhamdu mboolem xaaju cant yi lillahi ak sax la ñeel yàlla al karimi kii aji baax silminam kii borom xéewal al astiqaali ci sama soxla woo bi furóodin ci ay farata wa sunnam ak sunna sëriñ bi daal lay waroog sëriñ si seet li ngeen way bi sëriñ bi daal lay waroog sëriñ si ci alhamdulillahi karimi silminam al astiqaali bi furóodin wa sunnam sëriñ bi waroon naa sëriñ si bu yàgg alhamdulillahi koo ko gis mu wax ko dañ koo jox lu foor mu def ci poos bi addu yu diis mu def ci poos bi ni alhamdulillah dal la sant dal la jàmmante yow bu baax a baax sëriñ bi nag ni maa ngi sant yàlla man ci sax ma sax ci farata sunna xool ba mu sante sant waay ñu waroo sax gi la sax ci sunna maa ngi ci sant yàlla tuwaa am na benn boo xam dafa ñëw ci moom ni dégg naa samitu anna hunaka kawriyun yuddahi ilma dégg naa ni benn kawriyo bu foofu du woote xam-xam dañu ko meebal daraja ab sëriñ bu mag la ñu meebal ko daraja mu jël sëriñ mag bi dikk sëriñ fekk sëriñ mag bi di julli tisbaar ñuy ni ko taqaddam bi naan nu salli boora doxal mu julli tisbaar naa ko dal taxaw ca kanam neen kawri waru koo jiite mu ne allahu akbar sëñ Tuubaa ñu tàmbalam ba mu ne allahu akbar rek ñu teex roogam li këpp fi suuf sëriñ bi nee na kenn du ma jiite léegi bu ma jiit ñu far sa sa ñu far sa tur ca diwaanu diwaanu diwaanu lawliyaa ñu teex roogam sëriñ bi aw ko téye ko muy xaam sëñ bi jëlu ko jiite waxtu ba ba noppi ba mu sëmbalee raay bopp rek muy yeewu naan yëpp waaw mu sukk raam dal di bokk ci doog a mujj ah mbokk bi doo koy def sëñ bi li may def noonu. Hmm? lu tax bokk ci dongo yi takkusaan jot abdu abdullahi daabu lu mbay di sëñ tubaab ko taqaddam bi naan sànnin xafra benn jaamu naa moo koy jàngu dara sàmmi gileem rek la mokkal bu sàmmi gileem daal di ñu nuuri loolu rek la man sëñ bi di ko doxal mu julli takkusaan mu jiite takkusaan jiite ko rek waaw loolu da bu ngeen ko gisee rek kii kaan kuure di sëriñ mënta jiite sëriñ bi sëriñ bi kàmbal mu daanu kii nag xamul dara sëriñ bi ko doxal mu julli nee na sala salla ma an baaroo wa suwaal an baaroo bi suwaal mais ba mu ne asalaamaaleykum bañ ko jëkkatee laaj benn la rek daa jëkkat naa dal dol xalima yi rek wër ko ne ko kay ba yata xaddamu amaamana haasa أيضا أجلت عن أمامنا هذا الأرض الكريم لا يهلم سير لا يميز بين الفرد والسنن kaw yi bi nga xëy sunu jaam la bu ñu sàmmali gi léegi xamul fàq ak sunu nan la mën a taxawee sa kanam julli tekki yi xëy sunu la boo xëy moo raw di sëtub yonent bi di xaalim di xaabit di xaaris di xaabis nga kàbbal bu daaru kii ya bàyyi ko mu julli mu leen salaatu sitta bi mat i sitta taati yi bas na sitta suñ bu yekkee genn mu ne ca géej ba muy liggéey ci géej gi ba muy liggéey ci géej gi daa yegg ci léeg-léeg ñu jiyaaleeg yàlla te njëkk wax ci mi nenul baaxin xadim mu gisaat baaxin maxdum mi nenul baaxin xadim bu Cheikh Mouhamadou yàlla ci puus ca màggu yàlla ga puus ca màggu yàlla ga ba yegg ba yegg yàlla ga alam taxalam am na bay yo bay nekk wasila انا دا يغول لي سما ديغت يغوتي لا امنا انا دا يغول لي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم موي بنت بي مي مول بنت بو ولا دي بي جابا دي مي ديالا يغول دي بي تام دي كي ديالا مام با با لا تي بي تام بو مجي يالا نيما غيرني الله تعالى ان الله تعالى كما هو لي رب لي رب ما يقول لي ام آه، ا فلا يقول ام بو باي موي سو بو سامبو مي يالا نيما ان بو ان ام راجو على بيرهما nee ma dara caa xamee la ñu mbir mi daan daa déew seen diggante ne yàlla sóor na ma ci jalaal ba kenn xàmmeetu ma am moom rasulullah sóor na ma ci jalaal ba kenn xàmmeetu ma am moom mooy kër yi ci diggante bi de moo tax mu ne sa salaatu sitta bi ma ci sitta taati bata ma ci say juróom benn waxtu yëpp da koy julli juróom benn waxtu yëpp mu koy tàgg yàlla dëgg ne ku ku max na ku rek ak nelaw wala sukk ndax ba suur wuuf ndax ba suur lekk ba rek sëriñ bi la bu màndee dafay dimbali bis tey ci waaye moo doon sëriñ sëriñ benn la mu nga tuwaa naaw man la sëriñ benn la mu nga tuwaa laa seeral koo xam ne kii tuub yi ñuy tuub ci téere bi yëpp moom sëriñ tuwaa ne neen rek laay tuub de xaru ndam yi xam nga ku bëgg a yekkale lu bari li nga wax la mboot suuf da ngay mer ne ndamul guddee ndamul bëccëg dafa xat lool ci sama jàmm ndax li ma bëgg a tagg rasulullah jullil ko yàlla ci guddi gi balaa maa xaajal li may yéene rek cant bi feeñ ne ma soog bëccëg bi ndax bëccëg bi li ma ci bëgg a tagg rasulullah li ma ci bëgg a jull ci yàlla ne balaa maa xaajal li may yéene rek cant bi so ne ci lii laa nekk ba jël ne xatu ndax yooyu rek lay tuub waaye mosuma laal bàkkaar bàkkaar loolu mu seet kooku boo koy tëkkaleel la dañ koo defee xam ne day sàmm lu nag sakartu woo sant naa ko li am na loo ngir moom day xat saara ni li wane nañ jëlee ci dëkk nafa dàq bii ci dëkk ba maa nekk loo koy xaaral ni gàllankoor na ma maa ngi mujj ne sant naa yàlla mi nga xëy moo ma jàpp wambat ma dem ba fii mooy Touba waaw te Touba kooku kat Cheikh Omar Fouti doon na ko wër dem ba màkkan ko wër ndax wàllu kamal jóge màkka boo la la moo tax la boo la daa wax mbaatu ma dadoy seemaa ba baax ma dibal ma gaaw ko mu jeex. Hmm? daaw Cheikh Omar Fouti wàllu kamal la. bàttu subaan koo gis ca araf mu wër ko wër nag ci suuf. mu dem ñu joxoon ko mu dem ba màgg léegi jëlatu ko foofu jot mu jël ko foofu leer ko diggante bi mu ñëw di baaxal di diggante mbàkke boobu ak tuuba bu ñëwee ba tuuba leer bi sànni ko mbàkke mu dem ba mbàkke leer bi sànni ko tuuba ba mu baaxal duma juróom ñaari yoon bi mu jël sie mbàkke nag mu fekk maam moo am sa sëri bàyyi sëñ mag ci sayu ak bàyyi sëñ mbàkke budu ñu wéeru ci genn garab mu jox leen loxo dal ni ñoom mi ngi dellu dal ni làkk ci kulóoy ni leen borom jamono muy jëw kii la ma doon kii ci leer ci kii lay génne kii mooy jur taalibe bu gën a màgg ci xam-xam ci moom kenn ci jur suñu baax bu muy taalibe sëñ Tuubaa kenn ci jur sëñ Tuubaa am na lu mu leen ko wax nag lu mu leen digal defuñu ko waaye duma ko def man see xaw ma am na lu mu leen digal ko waaye defuñu ko waaye man duma ko def sëñ bi moo dàqal nañu ko lépp lu ko gàllankoor waxaana ñu wommat na ma moom yàlla ilay ñëw ci boppam bi taxal lii min bay di maa na ba bi taxal lii gisa way woowoo tax bi dina ko bëgg a taxliyatu te defoo taxliyatu du sol boo bëggee sol mbubb defe naa am na nooy def boo jógee ca tool ya bëgg a sol sa mbubb nooy def du la ngay sangu ba set seen tubaab yi ku bëgg a wàcc te sol woo du sotti ne wàcc taay ba faale ne man damaa sangu ba set door a wàcc sangu bu rafet mooy dem gi mu dem ci géej gi ndax sangu yoon wi ba mu set nit mu door ko waajal moo tax mu ni waxaada muy womat dama indi jële ci boppam bi ta alli ci takkaayoo waajtaay min ba dinaa asaba ginnaaw ba masalele bi taxal lii ci summiku nag damaa summiku ma noppi door a solo dañ maa summi lépp lu bon ma noppi solal ma lépp lu baax liñ ma solal dootu summiku mukk lañ ma summi leen dootu ma sol mukk wajaaroon yi mu xëcc ma nag إلا له نومي فتن ربي تورا جرم تي خم خم والفوز أغتره والعمل بالمعلوم أجيه لبقام ثم صلاة والسلام التبع على الذي خفضي أما التبع ني صلاة والسلام يالا ني تكاي خيني توقنا يالا نم واي تمان لما جبل مويت ما توق تنم واي أما الذي يالا ني تكاي خيني من بما بيقتدى في سر الواجه يكون مقتدى xam nga am na téere yu bi muraati yi bi muraati yi ci ay nammeelam lay firi waaye bi maraati yi ji nag moo gën ma ne tabaa roy bi maraati yi ci sunnaam ci serri wal jaan ci lu nëbbu ak lu feeñ yeekuunu dina nekk moqtadaa ku ñëw mais maa ngi julli ci ki nga xam ne ci sunnaam ci lu nëbbu ak lu feeñ des na la roy te li ñu nekk roy bi nam war a ñu la dafa naa suñ bi koy roy bu baax a baax mu ne mu woon moom ne si mooy terrain aadamil madina moo gaadaayam dem Medina ànd ak Aboubacar Aboubacar moo ko may li mu am kat dëggal rek moo jëkk dëggal yonent bi jox ko alalam sëriñ bi ne waatan na bi yëpp bi am waari wa ankar woo bintan walam yaru sakfun wa inkaru lam yasribul xamra lam yasjud ila sanamin wal walidani maa awlaadi abraaru ko tagg naa boobu kat ba may tagg gaa yi ku ne naa la jox juróom-ñeenti woy ci rayé bi waaye moom fukki woy ñett laa koy jox ndax mooy seen sam ndax da ko gëm mooy teexi doon yoon wee nee na ci digalu boromam la gàddaay de Medina fa ñoo ñëwal la diina diine la tim so wati la mo mali ci ci sa borom hmm kay aj Muhammad Muhammad la du xëy wala gëj gën def safi hi kay ajram mo wa ali aliya bi ñam ko wa sahabi ak sa baam am jóomi ñi bidiw asxaab yi te nu jóomi la wax al alxaayiri nu fuus ñee nopp siiri bakkan wala ci jiwiti nopp seytaani mun nag haadaa yëgal ni wa inni nak am amaam sëñ Tuubaa al yow wa tey yawma wahaabu yow bi laa ak laa taxaabu du ma ragal xayraka ku dul yow bi daal bi ci yàlla kër man Sëriñ Tuubaa du ma ragal ku dul yàlla yàlla rek laay ragal du ma ragal ku dul yàlla wa inna nii naka man yaa baru yow aji baax yaa karimu yow aji tedd baax man kooku la laa wër yaa wër laa bëru taaru dañoo ak xam yàlla tamit la ko jëkk rek daa hin aji woote laa lën mbir yàlla moo ko bi maanaam la waaye ay yëngu du ma dee am sukkandiku wala di la dee mun bu di rattani diiru ba ma xëccee illay ka jëme ci yow yaa moom il yow aji dimbali xinaaye dama di jagleel mel ko bu tukkee ci yow illay jëm ci man li ko ili ngir nga dimbali yow gis nag moom daa sus ci yàlla da cee xoolee rek min ni illay ka min ka illi mi min min min illay ka min ni illay ka eh, min ka illaya rek taxum tu ma jëm nag maj suuban ilayka minka bika alayka waraditu anka mu farridan musalliman ilayka amri muhajiran li ma labayka

yaa moom yi xin naa rek lu mu rek jagleel mën nga bu tukkee teew ilay yëm ci man li ko miin ngir nga dimbali ma fa xam ma jóg nag mos a mët soo la may ko ñu xëcc ilay nga jëm ci yow mil ka jóge ci yow nee ci yàlla laa jógee jëm ci yàlla xam nga la dalam la dalam Mikaayil dal na ko kon subhaana rabbi yàlla la moo ko indi ci julli bokku ci woon subhaana rabbi yàlla la

mun naaw naaw boo xam ne buy ñi gën a naaw fort ci avion yi moo ko gën a daaw mu naaw junni ak xool aar mu toll la mu tolloon leer gi làkk ko mu toll ni mu toll na mu tolloon naaw junni ak xool aar mu toll na mu tolloon rek mu ne yàlla mu mel ne mu naawaat junni ak xool aar moo tóori foofu jógee sori naa ba mel ni gis nga boo duggee avion wanee ci ko xam nga dëkk boobu seen dëkk bi yëpp oto bi ko gën a rëy ci bët dëkk bi laa wax dëkk ndax sori ko waaw xam nga fukki kilomètre boo ko daandee ko loolu day tuut fekk na loolu tuutiwul la da nga ko sori loolu arab ah, fa mu jëm ci arab da koo soree soree sore ba mën a toll picc mu tuut ndax tuut mu gerte si mu jógee woon mu toll ni bicc ma tuut mu jaaxle na mu toll ni rabbi yàlla la jël lañ ñeel na buur bu fooy la da nga yàlla dimbali ma rek delloo ma jaaxle jël xew doo ko ñu xam ah. waaw daa jaaxle. moo tax rabbi yàlla allah may fi li ñetti yoon sëriñ Tuubaa ne benn bàkkaar mi ko bu jéem. subaa rabbi yàlla allah may fi lii subaa rabbi allah allah may fi lii prix bi ne boo boo boo boo dëppee sa boo booy si yëpp ngay wax booy ko. booy si waaw kay booy ko kóol kay. waaw dama ne boo jàppee bi ne motul benn bàkkaar bàkkaar yëpp jeex yi nga yees woon nga xam ne si moom ngay. ah su ma la waxee lu bi. mooy record mooy record. su ma la waxee ah ndax mooy fële mooy si jot bi. waaw leeral la muy kay wax. li boo waxee ñetti yoon tàggoo nga bakkaar li boo waxee ñetti yoon fekk dell ak leer fekk dell ak leer saa boo waxee loolu ñetti yoon te fekk na ci julli tàggoo nga ak bakkaar te ñu ne bu la fekkul ci julli tàggoo nga ak bakkaar subaa rabbi la la allahumma salli subaa rabbi la la allahumma salli subaa rabbi la la allahumma salli kon sëriñ bi ilayka minka jël ci yow jóge ci yow kon ci yàlla rek la ma jàpp ci yow sa kaw wara niitu xànka te gërëm naa la mu faw ni dan may aji joyal samay mu sàll yoon may aji jébbal samay mbir ilayka ci yow mu sàll mu faw dan may aji mu sàll yoon may aji jébbal amri samay mbir ilayka mu xaar dan may aji ma la day ko jël yow jël li nekk yow su ma ilayka nee ma jël topp ma jël ci yow du ma jël ci keneen ku dul yow xat seetlu lambaa lam ajit ba a xamee ne ëmb ma sarwaako sa ndeem ne lamb daal lamb gisuma lu yàlla ma jóge ci yàlla jëm ci yàlla jaar ci yàlla nekk ci yàlla nekk ci ko yàlla nekk ci biir yàlla lépp li sa lépp di yàlla moo tax suñ bay saam moom noonu ko yàllaa ngi mu ne ko mu woo ko tëral ko suuf ba fees ne ko Babacar yàlla lan yëri ko lan yóor a kenn du ko wax bu kenn bu wax duy gémmiñ ko suuf ba mu fees ma bàyyi ko suñ dem ca marché ne suuf si dee yàllaa ko laal dama koy jaay nag soom fukki dërëm ci la xaalis jëlee moom muri ne giróo moom yaa muy ubbu xaalis mu ni kër ku bëcc ni ko yàllaa bi ku laal suuf képp muy ndi ubbu xaalis bu toll nii baaxul ba bàyyi daf jëlam ko bàyyi ba yoor yoor sëñ bi dikk di ko jàkk xool ba yàgg mu ni ko yëkkati ca kaw kàddu yéetam ko mu ne ko teg sa bët ak arab nga soxla mu ne ko def lenn la la ko teg sa bët ci caat ci rek Hmm? xool loolu fa ma teg sëriñ bi la fa ma teg sëriñ bi la xoolal Aboubacar maa ko def jublu ci Abou Jandala kër muy jébbalu ni te mu aawiya waa Màkka bi léegi ko ni ko demal ci Muhammad fa noonu comme aj bi noonu aj ci sa aj bi tànn na mënut la dem ndax jàpp nañu Ousmane téye ko ba jàppee Ousmane ibbi jour ci ko def buur bu nawet dikk yuuxu fi kanam saabu yi daan suuf li rey nañu Ousmane ngir yem Muhammad saabu yëpp la di jaay di seen sëñ Iblis rëcc ko daaw dem Màkka ni Muhammad te ñëw fi ngeen yéexee dëkk bépp jeex daal di fegum sële nag moom. lii de trésor ba yebalee ba yebalee Muawiya pour mu ñëw ci yonent bi bañ jéggee loolu xëy yonent bi am na doole biir ci dëkk bi tam dañoo yebal Muawiya te dama waxtaanal noonu moom ni ko doon dimbali dem ba déwén ba déwénee mu ñëw aj Màkka dama ko ñaan rek ci baaxam gi ak li mu nekk sax ak seetam gi yéewam gi ak yéem na leen jee te dama ko yaakaar ñaan ko ko rek ci njëkk yonent bi may leen ko أقرأ مير لا دليل يوبلي بيلد لي بسم الله ما لي بيلد بسم الله الرحمن الرحيم لي يوم تبي بيلد تا يوم تبي أمي أول في بعض من مين رفولا من يت آه، ليلا من يت على ما آية يدري يسكت ويعلم من كتاب الحكمة وإن كانوا من قبل في بلاد مبين أمي يوم مي يوم تبي بيلد ما تبي بيلد دليل بيلد لك وعندك تبي تلعب بالموقف loolu lañ koy defal laa ko xaalis bi ñu lisaana tamit tàngale bi ñu innaa lay naa jam'ahu wa qur'aanahu fi saa aram naa fa tabit qur'aanahu summa innaa lay naa bayaanahu ba ñu bind bismillah bismillah rahmaan rahim aboo aboo suuf yaa ne ko faral xolum rahmaan rahim bismillah ma rek yaa ne ko biral li mu bëgg waaw foofu yaa ne ko nun xanaa nekk ci dëkk saay saay bi jàpp ñëw di tuub di ñaar di sàcc mu bëgg muy bañ awaam mooy aboo kan fane awaam ne ko kii rasulullah yi lu mu wax mooy dëgg kon Ababacar dafa demee gëm Omar moom demee xam-xam ba ñu toogee tuur di seen aboo mu doon dikk di jéemul li yéen a dàq ko commencé koo ceeb lu ñu waxoon yéen jullit ndax dañoo may bàyyi delloo ko ci a ne bàyyi ko ne ko xanaa la mën a motilum mu ne ko bàyyi ñu dem Ababacar foñe ko ne ko rasulullahi la lu mu wax mooy dëgg ñu ne aborokat dafa demee gëm dafa demee xam-xam te gëm gërëm koo xam-xam na ah ndax borom xam-xam day juum day gàtt waaye gëm bi mën a gëm moom jëriñ la bu yàgg moo tax ku jàng gën a yomb a dem na bu yàgg moom gëm na ba defar bu yàgg ah aw surtout yoon yi ñu nekk yoonu murit yoonu murit moom gëm rek seex bi gëm rek boo mu dikkee jàng na ba ne aw ah, seex bi dinaa fanaan ne julli ba ba mu ko laandee ci paye ba fekk ci paye bi ñu laa ilaaha illallah laa laa ilaaha illa aman laa ilaaha illa gisee mu xam ne kii mooy borom mbir mi mu ne duma mu ne duma duma dàq kaaba ga te gis borom kaaba bi soog la bàyyee julli ma <laughs> màggali dégg nga li mu wax yàlla jóge ci moom jëm ci moom waaye li ma ne dañ ñut di loolu mooy Omar ndax yonent ba ñu waxtaanee ko ni da koo dégg ko Omar ah da ngay yëgul lii Abu Sufyaan signanteeg moom ni képp koo xam ñëw nga jóge ci yéefari ñëw di tuub bu nu ko ñëwee nga nangu ko te képp ku jóge ci yéen ko li tax ma nangu ku jóge fii ci ñun dem ñoom wóor na ma ni bu demee ku ñu nangoo fi yóbbu ko bu dee day teg ko Abu Jandala moom it ñu nangu woon delloo ko ndax ba ko def bu yëba ba mu nee moo topp dëkk ba ndànk ci campagne kon bu mu campagne ba mu mokk ba ñëpp jéegul Moy seen seen i blanc baax rek seen i mucc